إن الحمد لله نحمده جل وعلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله ñi ngi delluwaat di sant suñu boroom subhanahu wa taala jullit fu mu toll war na yeesal ngëmam ci boroomam dogu ci jaamu ko bañ koo bokkaale ak moom dara war na yeesal sant ci boroomam yëg xéewal yim ko defal loolee mu gërëm ko ca sant ko ca jalla waala suñu boroom nee na ba ngeen ma santee danaa leen dolli borom boobu lañu xam ni dafa teral doomu aadama ci biir ay millions ci espèce yoo xam ne bind na ko ci kaw suuf mu tànn ca doomu aadama yëkkati ko teral ko yéen ko ci biir géej muy traversé océan yi fu mu ko neexe yéen ko ci jiir yi muy dog àll yi nu mu ko neexe mu wërsëgal ko gën jaa tey lu lu lu baax lu muy wërsëgal li gën a neex ci kaw suuf doomu aadama mooy ka nga xam ne moo koy lekk suñu borom yëkkati ko gëne na ko ci lu ëpp ca la nga xam ne mooy ay bindaa fanam doonte ne mbokk julit ngëneel googu ci lan la nekk ndax ci dooleem ndax ci mën a yëkkati ay taax déedéet mbokk julit ngëneel googu mi ngi nekk ci xel na ko yàlla may xel moomu yóbbu ko ci mu dem wéetal boroomam jaamu ko waaye bu dul looloo doomu aadama bi jëfandikoowul xelam ba jaamuwul boroomam lum mën a def ci kaw suuf naawal nay avion yëkk ci nay immeuble a trouvé ne lépp luy faju jàngoro du tee moo yées mbott moo yées golo comme naka suñu borom yàlla subhanahu wa taala waxee ngëneelu doomu aadama mi ngi ci mu xam boroomam jaamu boroomam wéetal boroomam loolu moo tax ba mbokk julit tey jii seen doom yi ndaw yi ñu ngi jóge l'école ne dañ leen a may fête bu ñu tuddee quinzaine de la jeunesse quinzaine de la jeunesse boobu nga xam ne ñaata at ñu ngi koy célébrer mais ndax ña nga xam ne ñoo jiitee njàng moomi prévoir nañ ci ne ñoom kat ñi ngi jël neuf mois di jàngal doom yi la Descartes wax ak la Jules Ferry wax ak la keneen wax ndax dañu am diir boo xam ne dañ koy jël nag jàngaleel ko jàngal leen li seen borom wax ak li seen yeneen wax laa bokk loolu amul. looloo tax ba gannaaw ba ñu yàlla nattoo ci li nga xam ne moom la ñu nattoo ci tey jii doom yi nekk ci école ba ngal la way bu leen fàtte benn njàng parallèle bu ñuy méngale ak loolu. fexe ba suñ doom yi di xam ana lan mooy la nga xam ne mooy seen diini suñu borom daf ñu woo mu ne ay yéen jullit ñi fexe leen ba du ngeen dem safara fexe leen ba bu seen jaboot dem safara loolee naka mu fassiroon yi di firi mooy fexe leen ba jàngal seen doom yi waaye fexe leen ba yar seen doom yi yarub islam jàngale ga rek doyut yar ga it bu àndul ak njàng doyut fokk da ngay boole loolu jàngal ko ba mu xam tàggat ko ba mu jëfee na ngeen xam ne mbokk jullit amul benn xeet boo xam ne dana réussir lu dul day réussir ci kaw ay ndawam waaye na ngeen xam ne ndaw yi gën ci ndaw yi mooy ndaw yoo xam ne dañu xam seen borom looloo tax noonu lislaam yi bi ñu xamee loolu noonu ñu jëkkantee jëm ca jigéen ña noonu lañ jëkkantee jëm ca ndaw ña ngir la nga xam ne mooy lislaam boobu du am doole bokk na ay fiir yu rëy yoo xam ne def nañ ko la gën a màgg ci fiir yooyee mooy fexe ba xale yi duñ tala jàng seen diine ci ay jeux yu dul jeex ci ay xabaar yu dul jeex ci ay daje yu dul jeex loo xam ne dañ koy doxale seen diggante njaboot bi am jot bay dem di jàng seen diine loolu nag mbokk julit bokk na it la ca gën a màgg mooy dox seen digganteeg seen i borom yi xam-xam ana ñan ñooy idolu ndaw ñi tey mooy ña nga xam ne ñooy ceexankat yi na doon ca sportif yi la ca artiste yi la ca woykat ya la mais ndax ndaw ñi dégg nga leen ñuy bàkkoo di wax di roy la nga xam ne ñuy borom xam-xam ñuy jàngale qaala allah wa qaala rasulullah déedéet lu dul lu néew a néew ca ñoom loolu moo tax ba ngallaway nañ xam yow way jur ak yaru new ndawal julit mi nga xam ne commencé nga ràññee ci àdduna xamal ne la gën a màgg ci yow njëlbeenu la gën a yey mooy fexeel jàngi sa diine fexeel jàngi sa diine suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ndax jàpp ngeen ne ñi xam daan yem ak ñi xamul hal yastawi alladina yaalamun wa alladina la yaalamun déedéet boo ko julit su dee ñee ña ngay dem di jàngi pour nu ñuy tabaxe ñee di jàng ni ñuy faje ñee di jàng ni ñuy peinture ngalawaay yow jëkkal jàng xam kan mooy sa borom jëkkal jàng xam lan mooy sa diiney borom xamal na loolu mooy la jëkk a war ca la ngay xam xamal na loolu mooy la gën ca la ngay xam xamal na loolu mooy lay aar adduna di la aar alaxira même boo réere woon mboolem beneen xam-xam bu dul boobu te it nga xam ne mbooli nga xam-xame adduna yi soo ko dajale woon ca xamoo kan mooy sa borom xamoo sa diine xamal ne perte nga amoo dara xam-xam boo dee dina la mujj utiliser yow jëfandikoo la mu wuuteeg boo xamoon sa diine lépp loo xam yow yaa koy jëfandikoo jëriñu ca jëriña ca lii moo taxoon ba mbokk julit rasul sallallahu alayhi wa sallam ne jóg jàngi xam-xam de yi farata la ci képp koo xam ne góor nga wala képp koo xam ne jigéen nga te loolu it mbokk mooy diine lislaam du jël mukk la nga xam ne mooy xam-xam beeg jaamu gi di ko jagleel góor ña wala doom yu góor ña bu ñu tey dañuy sonal occident avec l' éducation des jeunes filles doonte ne ñoom lañ cay wax mooy nañ fexe jigéen ñi jàng jàng lan mooy jàng ñoom culture ba nga xam ne moom lañ ñu indil soo demee ay organisation internationale di dugal suñu réew mi ay milliards ngir loolee am ba am na sax lu ñuy tuddee ségrégation positive jël ay ay xale yu jigéen di leen gënale ci place yu bëri di leen jiital ci place yu bëri loolee mbokk ñu ne fekkoon nañ suñ diine ba muy commencé la yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon ñu ne déedéet jóg sakki xam-xam ka yi farata la ci bépp góor ak bépp jigéen ngallawaay nañu góorgóorlu ci loolu su ko defee ndawal jullit ñi góorgóorlu leen dem leen ci jàkka yi fu ngeen dégg na ña nga fay leeral diine ngallawaay bu leen fa kenn jiitu ay ndaw ngeen wala ay mag ngeen falilahi alhamdu jàkka ji ci dimanche bii passé lañ commencé dal fi téere bu bees téere bu ñuy tuddoo risaala risaala boobu nga xam ni am na junni at ci kaw suuf dañoo fekkoon sunu maam yi daan ko jàngale ci goxi Sénégal gépp risaala boobee ka koy bind ba mu koy bind fukki at ak juróom-ñaar la amoon lan moo taxoon nu bind ko mooy xale yi nga xam ne dem nañ ba mokkal alquran ana nu ñu leen di jàngale nag bañ xam seen diini ba mën a jaamu yàlla ci jaamu goo xam ne ni jaamu gu rafet la loolu it kon dem leen ci jàkk yi dem leen ci place xam-xam yi bu leen rus toog fu ngeen mën a nekk di nafar la nga xam ne mooy seen diine waaye gannaaw loolu yéen ndawal julit góorgóorlu leen tey jii xool leen seen morom yi ana ñaata ASC ñoo am tey amul benn gox bay dem lu dul fekk fa ASC lan mooy ASC mooy association sportive et culturelle na am ASC yooyu ay ndaw ñoo koy daje am nañu la nga xam ne mooy commission théâtre commission finance commission sportive commission nangam ngallaawaay yéen fexe leen am commission diine fexe leen bu ngeen dajee di waxe diine di wootante ci diine day concours ci ana kan mooy jëkk a mokkal suratu yaasin ci yéen kan mooy jëkk a mokkal suratul baqara ci yéen kan ci yéen moo xam farati julli ila axiri ca mooy di wootante ci seen biir loolee góor ñi ak jigéen ñi yëpp fa lillahi alhamdu soo demoon tey ci l'école yi am na lu ñuy tuddee la nga xam ne mooy AMD mi ngi noonu am na ñu tuddee AMS def nañ fédération mi ñu tuddee FIED am na ay UIT loolu lépp di ay ndaw ñoo xam ni tey jii ña ko sosoon ay paa lañu ak maam ñëwoon ci école yi primaire bi université di teyte sunu ndaw ñi di leen jàngal la nga xam ne mooy seen déeni loolu nag mbokk am na di mbégte waaye lu néew néew la ci biir société bi nga la wa yow ndawal julit ni nga xam ne nii fëkk nañ la ba dugal la ci parti politique yi fëkk la ba dugal la ci équipe de football yi fëkk la ba dugal la ci aar bi na nga fexe yow fëkk sa bopp ba bokk ca mbooloo ya nga xamee ne nii dañuy ittewoo di xam seen diine ittewoo di tasaare la nga xam ne mooy seen diine donte ne it ndawal julit xamal na loolu heure boo ca jógee fokk nga waat nag ak muñ mbokk suñu borom nee na li ëpp ci jaam yi bëgguñu dëkk képp koo xam ne yaa ngi nekk di bëgg a dund diine lislaam waajal nag am fulla am fayda diine ku amul fulla ak fayda du ko dund ndax dund diine dafa metti rawatina ci jamono mujjug jamono rasul sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ne jamono ngi ñëw ña nga xamee ni nii ñooy dund diine day dañuy mel ni ñu ngëpp ci xolu safara ay yow xale bu jigéen bi nga xamee ni nii yaa ngi fas yéene muuru waxuma nag muuray ala modd bi xew léegi jël daggati kol sànni sa baat ñu ne ibaadu nga déedéet mooy muuru muuray ba sharia santaane muur sa yaram yépp dara du feeñ ci kaw ba suuf yambar du ko def ndaw si am fulla ak fayda moo koy def ndaw si xam ne day dajal boromam moo koy def loolu nag fokk nga muñ loolu laay wax yow ndawal julit ñi tey jii yarab sikkim scandale la ci milieu yu bari fitna la ci milieu yu bari waaye gëmal ne sa borom moo ko santaane sa yonent yàlla bi ngay roy moom moo la santaane loolu yii yépp mbir la yoo xam ne da nga ci war a dëgër muñ ci su dee da nga caa bëgg réussir yow ndawal julit ay yow ndawal julit góor góorlul jëkkante te da nga xam ne mooy jaamu yàlla yi ni sa kàttan ëpp sa kàttanu bàyyi fexeel raw ko ci jaamu yàlla fexeel di ko jëkk yewu guddi di ko ëpp looy jàng alquran di ko ëpp looy naafila di ko ëpp looy def ay azkar lu waral loolu mbokk suñu borom daa bëgg ndaw li nga xam ne su demoon teeree ba ñu ne ko marhaban su demoon théâtre ba ñu ne ko ay ca fu mu dem am fa place mu wëlbati ko nag jëm ci boromam kooku suñu borom yàlla da koy bëgg looloo tax ba yonent bi alayhi salatu wasalaam ne juróom ñaari mbooloo ngi nii ñu leen di woo yowmal qiyaama di leen keral ca ker ga yàlla di indi ca bis penc ba yonent bi waxee la nga xam ne mooy imaam yu maandu ya lan la ca teg mooy ndaw ña nga xam ne ci seenu ndaw lañu commencé woon jaamu seen baroom yàlla na yàlla boole ñu te ñu nag suñuy ndaw ay yéen bokk dilit xam leen ni ak ndawit nekk na loo xam ne lu metti la ndax suñu borom mi ngi def ci yow benn shawxa benn puissance boo xam ne moo lay xëcc ci lu bon loolu nag da nga koo war a yow loo ca gannaayoo ngan la way bari lool di def ay askar def ay zikrullah jàngal zikr yi nga xamee ni nii booy génn sa kër booy dugg sa kër booy dugg sa classe jàngal la nga xamee ni nii mooy sa téere borom di bari di ko jàng waaye itamit góorgóorlul xeex ak sa bakkan bi ay yow dawal julit xamal ne sa bët yii day ah yaa ngi koy jëriñoo ci àdduna waaye say gardien la ñu de sa nopp yi say gardien lañu sa loxo yi say tànk yi say gardien lañu bis boo teewee sa kanamu borom suñu borom nee na bët yi dana nettali loo te doon seetaan nopp yi nett yi loo ci doon déglu loxo yi wax loo doon jëfee tànk yi wax foo ma sa dox jëm fa der bi nga xam ne moo nekk ci yow der bi yépp kaw ma ca suuf lépp loo ma sa fekk der bi dana taxaw sayda ko loolee yow dawal dilit xamal loolu góor-góor loolu ci fekk sa bopp rawatina ca la nga xamee ni nii mooy la gën a bon lu ndawal julit di def tam yomb ko lool rawatina jamono bi jamono jaxasoo mbokk mooy njaaloo bu bon bi ay yow ndawal julit góor nga wala jigéen fexeel ba la nga xam ne mooy say bët nga sajji ko jëmele ko ci jigéen ñi bu dee góor la fexeel ba say bët bu ci nekk xoolu bànneex góor jigéen waxumaa nag di ko laal yeneen bi alayhi salatu wasalaam nee na nga demoon day ñu jël benn pont dóor sa bopp ba mu jàll moo gën ngay jonjante ak jigéen bu la daganul ay yow xale bu jigéen bi ñu jëloon pont dóor ko sa bopp ba mu jàll moo gën sa der bi beneen góor bu la daganul di kalaar ñu moytu njaaloo ak lu ñuy yóbbu ci njaaloo jaxasoo ba wéetaay ba jigéen sol dàllam di fekki góor loolu la ñu yeneen ci bi alei salaam doon wax ay yéen ndaw ñi képp koo xamee ne nii day man na cee am ab sëy na dugg ca sëy su ko mënul ngalawaay nay jël ay bis di ko woor koor googee dana doon loo xam ne lu koy fekk la ay yow ndawal julit góorgóorlu leen seen kémtaleel kattan bañ di jël ay décision yoo xam ne yéen a koy jël ndawal julit bul jël mukk sa décision bopp te diisoo woo ca ak say kilifa te diisoo woo ca ak say boromi xam-xam loolee ci wàllu sëy la loolee ci wàllu lu mën a doon ci àdduna la moytu leen di tànnal seen bopp àdduna dafa gudd sun mag ñi dañ daan wax ne xale dina yéeg ca kaw garab ga siintu du gis dara mag moom tëdd fi mu tëdd di gis lu sori looloo tax lépp loo jublu diisoo ca ak waajur ya ak kilifa ya bu amee ci wàllu diine demal ci borom xam-xam yi nga waxtaan ci ak moom aka bari tey ay ndaw yoo xam ne yàq nañu seen diine dégg nañ ay woote rek woote yu jëm ci jihaad ñu takk seen i bagage dem ca woote boobee borom xam-xam yañ dëkkal kenn ci ñoom demu ca mbir am na woote ci fitna ñuy daal di cay dugg ca kenn ci seen borom xam-xam dugg ca loolee mbokk ay njuumte la yoo xam ne ngalawa yow ndawal julit fexel ba bul dugg ci loolu ngalawa yow waajur fexel ba yaral sa njaboot ci loolu gannaaw loolu it mbokk julit ay yow ndawal julit góorgóorlu nekk ab royukaay xamal ne adduna ñaari force ñoo fiy woote mooy xisbullah ak xisbu cheytaan ñii nga xam ne ñooy woote ci mbon am nañ ay ndaw yu ñu tàggat yu dul jeex ñoo ñii ñuy woote ci mbon yow fexeel di woote ci mbaax woote ci mbaax boobu lan laa ci jublu ndax mooy wax da nga doon wax ak di leen jàngal loolu wax naa ko ci bi bind yi passé kon la ma ci jublu mooy jub gi ngay jub yow doonal ku correct wane melokaan bu rafet ci sa waxin ci sa jëfin ci say jukkoo heure bu ñuy wut ko wóor na xel yépp dem ci yow heure bu ñuy wut ko maandu na xel yépp dem ci yow heure bu la bon jógee même buñ la ko tuumaaloon ñépp ne déedéet kooku du ko def lu waral loolu mooy jukko ju rafet da ngay nekke ak doomu aadama yi doon koo xamee ni nii ah fuñ la fekk lay feeñ ci yow mooy yaa ngi nekk ci ci ngërëmal yàlla loolee suñu borom yàlla sant nañu ko ci aaya yu bëri waaye bokk na ci loolu yow ndawal julit mooy nga xam ne yéeféer da nga koo war a xeeb suñu borom nee na fa lillahi alizza wa li rasulihi wa lil muminin borom bi nee na ki tedd ci kaw suuf mooy julit yow yaa war a nekk royukaay yéeféer yeeg seen colin yéeféer yeeg seen comportement nga xam ne ñii dañoo réer est ce waru gar la nga woo leen waaye mbokk julit du doon xel yow mi waroon na jiite ñu dem ba ci yoon ba gën nag léegi gumba moom na jiite yow nga nekk roy royu royu nga nekk royukaayu yéeféer ca àllab la nga xamee ne mooy ay doxalinam ca la ca gën a màgg gën caa feeñ mooy wàllu colin yi ay yéen bu ngeen jógee ci jàkka ji xool leen suñu doom yi génn ci lycée yi suñu doom yi nekk ci mbedd mi ndax man ngeen ràññee ne kii mooy jullit kii mooy chrétien la wallah lu dul ay benn benn yoo xam ne da nga dajeeg trente fii doog caa dajeeg benn wala ñaar bu muuru waaye bu dul looloo ñi ci des ñoom ñëpp nee nañ dara sol ay pantalon quatre vingt dix pour cent suñu jeune fille yi tey pantalon la ñuy sol nga xam ne musiba yi ci daje kenn xamul mun na ko wax ca na mun ne nekk colug góor nam nekk colug yéeféer ci loo xamee ni nii sun maam yi dellu woon ci gannaaw tuuti buñ ma saan gis xale bu sol pantalon wallahi dañuy jàpp ne asamaan ak suuf jaxasoo na tey jii nag nit ñi jàpp nañ ne lu banal la lu correct la ca loolu da ngay dem ba sax pantalon doon yi ci gën a baax fiso yoo xamee ni nii seen yaram yépp wallahi yéeféeri tubaab yi sax rus nañ ko di sol da ngay gis lu bari tey sunu ndaw jullit ñi di ko def lan moo ko waral mooy xeeb sa bopp xeeb sa culture xeeb sa diine màggal ay yéeféer ñoo xam ne suñu borom yàlla nee na bàyyi muy ñoo leen tane yow nga jël leen dem na ay royukaay ay ndawal jullit doonal koo xam ne kuy bégg sa diine nga doonal koo xam ne nii kay say royukaay mu nekk sa kanam mooy soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak soxna yu baax yooyee nga xam ne suñu borom tuddal na leen ci téeréem bu tedd bi loolee ngir na nga bëgg a dëkk ak ñoom ci àddina yu kawe ya ay yow ndawal julit góorgóorlul yéene ci sa dund ne man day dama bëgg a nekk kuy jëriñ sama société njàng mi ngay jàng na doon njàngum tubaab laam njàngum diina la sa jubluwaay mooy ëllëgi ki si biir day bëgg naa nekk ko am njëriñ ci société bi sa dund yépp loolu na nekk mbiram ngalawaay bul yor jukkay politicien nga xam ne seen jubluwaay yépp mooy nu ñuy def ba jëriñu kese lu ñu wax tey bu ëllëgee ñu génn ca ku ñu àndal tey bu ëllëgee ñu trahir la déedéet yow sa jubluwaay na nekk man day maa ngi jàng naa nekk ëllëg expert comptable naa nekk la nga xam ne mooy architecte naa nekk mécanicien xataa bu mu doon nekk ñuy dajale mbalit ci mbedd mi sax sama jubluwaay mooy naa doon koo xam ne bis bu ma xëyee naa am njëriñ ci sama société yeneen bi alayhi salatu wasalaam ne ki gën ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ ci société bi ca mbokk société bi ñëpp am njëriñ wallahi ñooñu nit ñi gën a xeeb muy la nga xam ne mooy ñooñu dajale mbalit coote mbalit yi léeg-léeg bu ñuy wàcc daañu wàccaari tuyaaba yoo xam ne imam yi ak professeur université yi amuñu ko kon bul xeeb benn métier bul xeeb dara yii sellalal sa yéene la ngay jàng jàng ko ci yàlla tax sukkandikul yàlla dimbali la loolee mbokk moo war a nekk yóbbalu bépp ndawal julit su ko defee nga la waaye la ma lay tëjale it mooy xamal ne suñu borom yàlla day bi mu lay indi ci kaw suuf dalaa indi ngir nga jaamu ko doomu aadama yi nag dañoo wëlbati mbir yi li ëpp ci doomu aadama yi dañoo jàpp ne li tax ñu ñëw ci kaw suuf mooy am wërsëg na doon alal gu ñuy dajale wala sëy bu réussir wala nguur wala leneen loo xam ne da leen di am mbokk suñu borom nag ne déedéet wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun yow ndawal julit yàlla dalaa bind ngir nga jaamu ko benn poste ngi nii nga fay am un million cinq cent mille par mois waaye bi nga laajee ñu ne la ah lii kat yàlla da ko xaraamal bàyyi ko woon ka gannaaw lépp loo xamee ne nii da ngay gis ne wàllu sakku alal la ak loolee lu mën a doon ak njëriñ ba lu mu teew teew nga la waay jëkkal xool ndax lii yàlla gërëm na ko am déet maa ngi lay seedeel ne amul lenn looy bàyyi ca yàlla tax lu dul yàlla wuutalal la lu ko gën nga la way ndawal julit gànnaa yoon la yàlla wax wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib amul kenn koo xam ne sa dund yaa nga dëgërloo wéetal yàlla ragal yàlla lu dul suñu borom nee na dinaa la may génn waay ci bépp jafe-jafe boo nekk ca it dinaa la wërsëgal foo xam ne fooge woo ko fa woon mbokk lii mooy la nga xamee ne nii jàpp nañu ne tey jii buñ naan dañoo tëral ab quinzaine de la jeunesse loolu bépp ndaw war nay bàyyi xel lenn ci bind yi ñu wax waaye nag rawatina yéen parents yi na doon ay góor ngeen wala ay jigéen ngeen ngalluwaay ngeen xam ne yéenay responsable ndaw ñooñee ca ëllëg ki si biir suñu borom yàlla dana taxaw laaj leen naka ngeen jëfe woon ak ñoom yal na yàlla wërsëgal ñu suñu njaboot gi doon luy seral suñu xol àdduna ak alaxira yal nañu yàlla wërsëgal njaboot gu xam seen borom njaboot guy jaamu seen borom njaboot bu ñu raw ci jaamu yàlla jalla wa ala yal nañu yàlla musal ci lépp loo xam ne day gàllankoor ndaw ñi di dox seen digganteeg ñu jaamu seen borom lépp lu leen di gàllankoor di leen xëcc di leen yóbbu ci yoonu shaytaan yal na yàlla defal ñun ñëpp muñ gu rafet boole ñoog sunu njaboot ca jannatul firdaws al a'la اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين